delsiwaat nañ ci suñu jotaayu jàng li nga xam ne moom mooy achiru wa shuara achiru wa shuara nag waxoon nañ ci achiru wa shuara waxoon nañ ci maanaam waxoon nañ ci mooy waxoon nañ lan mooy achiru ñan ñooy ashuara waxoon nañu الشعر في الجاهلية ومن جلوبري ده من صحب وقت الشعر في كماس ما الإسلام wante dañuy ñëw rek ci الشعر ci wàllu qissat xub qissatu xub maanaam histoire mbëggeel la ñuy wax histoire mbëggeel bi gën a siiw ci arab la ñuy wax ji histoire bi gën a siiw bi gën a rëy bi gën a sensible ci wàllu mbëggeel euh, maanaam góor gu bëgg jigéen loolu incha allahu rabbi euh, ci la ñuy waxte yi kooku nag euh, acteuru qissa bi acteuru qissa bi mooy kooku ñuy tudde majnuuna layla tam tudd Qays ibnul Mulawwax Qays ibnul Mulawwax moom la tudd ñu naan ko majnuun layla dofu layla bi lu tax ndax dafa bëgg layla ba dof ba mbëggeel gi nekk feebar dafa bëgg layla ba mbëggeel gi nekk feebar kon léegi dañuy laaj lu tax kon ñuy ñu maanaam affaire mbëggeel góor gu bëgg jigéen est que loolu yell na ñu ciy waxtaan ci jaamia lan mooy njariñ li ci nekk ba tax ñu war koo euh, euh, jàng waaw kay njariñ li ci nekk du mbëggeel bi lañuy ñuy jàng déedéet parce que ndaxte façon mbëggeel googu euh, maanaam xis majnun layla du du nekkul référence ci mbëggeel nekkul référence ci mbëggeel ndaxte mbëggeelam amna nu muy deme sax mën naa yóbbu nit ki ci bokkaale day yóbbu nit ki sax ci ci kéeféer wante ash shiir yi ci nekk maanaam abiyat shiiriya yi nga xam ni ak nim balaaxa lugal arabiya bi mu am bi mu àndal loolu moo ñu itteel ci qissa bii ñuy wax qissatu layla incha allah dañ ko wax dañ ci wax lépp wala buñ ci waxe ba pay da bu fekke dañ ci bay di nañ ci bay dara ni ci bay tout lay dom ndegam daan ci bay ba taxna qissatu hubb lañ wax wante qissatu hubb bobu li nek ci qissa bi ci walu maani lugal arabiya moom moo ñu itteel balaaxaat di nek ci qissa bi jang yi ci nek ci walu uslu asalib yi ci nek shiir yi ci nekk shiir bi ci nekk lugal arabiya boobu ñun loolu lañ soxla ci qissa bi wante teewul nag ngir ngir ñu euh, teelu maani luga yooyu fokk ñu xam euh, histoire bi ni mu demee naka noonu sax daf lay daf dafay wéttal nit nag day wéttal nit ba tax na euh, di ko déglu léeg-léeg da ciy baax du sax nga jàng ci bëgg jigéen déedéet maanaam ki nga xam ne koo bëgg ngir soxna mbëggeel goo xam ne ngir soxna nga ko bëgg noonu kenn du ko bëgg jigéen kenn du ko bëgge jigéen wante nag euh, li nga xam ni moom mooy demuwaayu euh, xissa bi ci la muy wër madaaru xissa bi dañ ciy jëriñu lu bare bare ci wàllu luxal arabiya ci wàllu balaaxa ci wàllu uslub arabi ci wàllu nag al ashar loolu dinañ ci loolu lépp ci incha allah léegi Majnun Layla te tamit nekkul ni euh, Majnun Layla moo ñu intéressé maanaam du du du du jëmm ji moo ñu intéressé du ndaw si ci bopp moo ñu ndaw si ndax nu mu mel xamuñu ko jëmuñu ko toppatoo euh, ku góor ki tamit te mooy mooy Qays ibnu ay mu ibnu wax fan la juddoo kañ la juddu intéressé wuñu jëmm ji وانت اشعارينك كبير قصة بموني انتريس كون جيرو نيران قيس ابن الملوح في الجدو في الجدو في الدك جيرو مانام آه، بفكنتني دفا ام لنوي وقتي والو قصة يملني آه، فوق رك ننتي ننتي ام جاري ننتي وط مانام ننتي جاري نيوكي والو لغة العربية نختي اسعار العرب بوكو بوكي اسعار العرب لتخ نيجل ايام العرب واشعارهم لول بوكي سي نيت ني دي ديكو ايتيو سي باسكو لي تي نيك تي اي اساليب عربيه تي اساليب بلاغيه تي معاني نحويه لولو آه، موتي ايتيل كيب كو خامن ريك لغه العربيه دافا ايتيل ndaxte bo setlo waxon naa waxon naa waxon naa ca bu njëkk ca ba commencé ma ni euh, achiru Ibn Abbas laa wax sax Ibn Abbas nee na euh, achiru diiwaanul arab achiru diiwaanu al arab maanaam euh, loo bëgg a xam ci arab ñëwal ci ñëwal ci cheru léeg-léeg nga àgg foo xam ne ci wàllu naxu ci wàllu boo xoolee ci Alfiya ibn Malik dinañu ñëw ci wàllu alfiya indi ci yoo xam ne da nga naan da nga naan lii ban qaacida la am ci qaacida naxwiya nangu ko mais man la déedéet loolu am na ci luxa arabiya nan dellu ci cheer bu ñu delloo ci cheer na nga gis mbir mi ndeke lu am na ci luxa arabiya moo tax al cheeru wa shuara mënuñu koo bañ a jàng ci suñu jaamia yi وخنا قيس الملوح قيس بن الملوح آه، ام نينا قيس بن الملوح مين قيس بن الملوح مين قيس بن الملوح على كل حال مو مجنون لي رالي كتب وخناني ا دير ني آه، مانام خول فن لا جدو كين لا جدو تي بان جامونو لا نيكون وخناني لولو ديروكو كو وانت كوم dañoo nar a wax xissaam dañoo war dañoo nar a wax ci ay wàllu ay abyaat shiciriyaam ay shicram ñu xam shicri bi shicr lan la shicr umawi la wala shicr abbasi kon fokk ñu xam moom kañ la judd loolu maanaam mënta ñàkk ala kulli xaal moom qasida bi ci qasira islamiya la maanaam ci après l'islam nekkul jahiliya Qays ibnul Munawwar moom euh, boo seetloo mi ngi juddu bi gàddaay gi amee ñaar fukki at ak ñeent léegi ñaar fukki at ñeent bi gàddaay gi amee loolu ci la judd kon dangay gis ni kon dund na ci euh, euh, maanaam xilaafatu Usmaan maanaam jeexi après xilaafa bidaayatu xilaafat Ousmane kon ci la judd ndaxte bi jàddaay gi amee bi jàddaay gi amee fukki at ak benn ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem Aboubacar daal di jël mu am ñaari at ñaar bi jàddaay gi amee fukki at ak ñett ci la Aboubacar dem bi jàddaay gi amee fukki at euh, ñaar fukki at ak ñett ci la Omar euh, mu Xattaab dem kon ci ñaar fukki at ak ñeent ci la Ousmane jël xilaaf kon ci ci ci njëlbeenu xilaafatu Ousmane ci la qaysul mu la judd maanaam ci la ci la pour ngeen xam ay abiyaat shi'riyam qissa bi ci ban jamono la woon loolu tamit da ciy baax mu génn àddina bi gàddaay gi amee juróom benn fukki at ak juróom ñett ci jamono yi jamono yi xilaafat marwan ibnu xakam ci jamono yi marwan ibnu xakam ak abdul malik bin marwan Abdul Malik bun Marwan nga xam ne kon ci al qarn al awal ci ci la qarn al awal ci bidaaya al qarn al awal sax maanaam ñu jër kon judd na ci kon léegi Qays ibnul Mulawwax bi gàddaay gi amee ñaar fukki at ak ñeent ci la judd bi gàddaay gi amee juróom-benn fukki at ak juróom-ñett ci la génn àdduna ci jamonoy Abdul Malik bun Marwan kon xam nañu qays qays ibnu mulawwax kañ la juddu xam nañu kañ la génn àdduna kon ci diggante bi xilaafatu Ousmane ba xilaafatu Abdul Malik bin Marwan ci boobu diggante la qays doon dund kon qissa bi ci diggante boobu la am kon moom shaair la boo xam ni shaairun umawi shaairun umawiyun kon fekkewul al asr al abbasi maanaam jamono ñoom farazaq ñoom jarir kon Qays ibn Mulaw moo leen moo leen jiitu ay ñoom jarir ñoom Farazaq eh, ak ñoom Axtal ak ñeneen ak ñeneen Qays ibn Mulawah moo leen jiitu léegi eh, Qays ibn Mulawah bala ñoo commencé ci ay ashaaram shiaram eh, fokk ñu comme ni ma ko waxee waxaale xissaam ndax xissa bi ndax ay abiyaat shiiriyaam yim gën a siiw ci biir xissaam la am daanaka li mu wax ci ay abiyaat li ci bare bare bare lépp mi ngi ko jëmale ci bëgg gi mu bëgg Euh, Layla boobu nga xam ni maanaam euh, ñoo màggandoo moom ak Layla ñoo màggandoo nekkandoo xale daan fowandoo ba nekkee xale euh, léegi nag xam nga liñ naan ami d'enfance léegi nag boo seetloo nag ami d'enfance moom nga xam ni dañuy dem dañuy dem a dem ba mbëggeel juddu ca ndaxte ñaari léeg-léeg nga gis ñaari way dencante bu ko defee nga naan ko waaye yéen ñaar si sa diggante sa soxna foo xamee soxna si ak kañ ngeen bëggante daf naan ñun ñoo nekkandoo xale bi ñu nekkee ay xale yu tuuti lañ daan foofu booba lañ bëggante xam nga xam nga mbëggante bëgg yooyu du nekk luy gaawar maanaam day sax ci nit rek day sax ci ñaare foo fekk ci bëree bëri ñu bëree bëri seen aawo euh, ñu bëri seen ba yi bëggante booba ay xale lañu woon léegi nag loolu moo dal Qays ci Layla moo dal Layla tamit ci Qays Qays bëgg ko Layla bëgg ko ñoom ñaar nag kenn ku ci nekk bëgg sa euh, morom daan daan sàmm ay ay ay jur daan sàmm ay xar léegi maanaam benn bis euh, Layla dafa mujji moom di buy day dajale day dajale euh, waxambaane waa wa waa goxam gox bi di leen di di déglu ci ñoom ay ashar parce que parce que affaire shi'r affaire way lugal arabia dafa dafa dafa siiwoon ci ci al asr umawi léegi nag daf daan mu daan jël ci ñoom ashar di jël ci ñoom di leen jox di leen dégtal di jël ci ñoom léegi nag di wane ni moom kët bëggul xays maanaam muy muy wane ni moom ci ñoom la gën a jox itte xays joxul xays itte e xays nag loolu mu am ci maanaam fiiraange gu guy tàkk ci xol bi mu am fiiraange gu métte métte métte ndaxte gis na ni Layla amul ci moom benn itte mi ngi itte woo waxambaane yi nga xam ñoom la toogal léegi Qays daal di wax daal di wax ñaari bët cheer daal ni taallaqtu Layla wa hiya xidun saxiratun ولم يبدو للأتراب من صدرها حجم صغيرين نرعى البهمة yaa layta annana ila al yawm lam nakbur ila al yawmi lam nakbur walam takburil buhmu maanaam dafa ni Layla dama ko maanaam dama Layla sama mbëggeel ci moom yàgg na booba xale bu ndaw a ndaw a ndaw la booba amagul sax booba ay maanaam maanaam am xale la xale la li li li nga xam ne moom mooy tax ñu naan jigéen feeñagul ci moom ñu nekk ay xale yu ndaw di di waaye nag aka neexoon eh, ngone googee ñu nekkoon ñu continuer ci bañ a màgg bu ko defee jur gi tamit day bañ a màgg saxiirayn naral buhma yaa layta annana ila al yawmi lam nakbur wa lam takburil buhum léegi Layla dégg wax jooju bëgg koo xamal ni man sama mbëggeel bu yàgg sama mbëggeel ba ñu nekkee ay xale ba léegi mbëggeel loolu moo nekk ci man منكو كلانا مظهر للناس بغضا وكل وكل عند صاحبه مكين يعني دي تخبرنا العيون بما أردنا وفي القلبين فم هوى دفين منكو مانام موميت خمغا دافا واخ غار والي ليلة ليلة تميت دادي واخ غار لا نكو نين نيار نيب كين كو تي نيك لي ني وان نيت ني موي كين كو تي نيك دافا بان سامروم لول موي لي ني واني wante kenn ku ci nekk am nga mbëggeel ci gu sax ci biir xolam maanaam kenn ku ci nekk am na mbëggeel gu mu dencal waayam bu sax ci biir xolam tuxabiruna al uyunu bima aradna wa fi l qalbayni famma hawan yaa ngi bu ko defee suñu gis suñu maanaam suñu xoolantee man ak yow rek suñ bët dina dinañu wax kenn ku ci nekk mbëggeel gi nekk ci xolu xolam ci ni mu bëggee waay léegi bi nga xamee ni euh, Layla wax na abyaat yi Qays majnun Layla dafa dafa dafa dafa daanu xam ndax mbëggeel gi mu bëgg Layla dafa daanu xam bi mu daanoo xam nag xale dafa fa nekkoon daal dem wax ko papa yi ni ko Qays daal Qays daal mbëggeelam ci Layla dafa mujj dof dafa mujj dof di xam ndax ni mu bëggee lay la ji daal di mer mer bu tar mer bu lool sax daan ni léegi nag xam nga lan la kër gi bu ko génnati bul toogati kenn buñ la gisatee mu daa koy wax papa yi papa yi lay dem ca buur ba wax ko buur njiitu dëkk ba kilifa dëkk ba ni ko lay daal bëgg na sa ah, kii ni ko xays dafa bëgg ni ko bëgg sama doom ba bay xam mbëggeel gu maanaam bëgg te man përiwuma pour may ko sama doom léegi buur bi daal di menacé Qays ni ko daal di menacé euh, euh, Qays ni ko bul jegeeti Layla waa kër Layla daan ni Layla buñ la gisatee waaw maanaam bi ni ko bul duggati bul bul ci Layla Layla bul demal ci Qays Qays bul demal ci Layla léegi bi bi papa yi Qays yégee ah moom Layla kat teeree nañ ko Qays léegi papa Qays dañ ni ko yow yow kay demal kër ñoom Layla nga ni papa Layla nañ ko may nañ ko may do nañ ko may Layla nañu may Qays Layla ñoom ñaar ñu nekk ay way dencante kenn ku ci nekk daal dagan sama morom boobaa nag fu leen neex dem ñu daal def loolu dem ci papa Layla papa Layla lànk daan pare bu ma man maa jël sama doom di ko may di ko may ab dof man maa jël sama doom bu ko defee nit ñi commencé di ma mamm nag du ma ko def léegi nag papa yi Layla delsi Layla am lu ko metti am jàq dama juum Qays am jàqare parce que parce que parce que papaam dafa ne du ma sëmi sama doom Layla du ma ko may Qays ndax ndaxte Qays dof la Qays dof la am na sagom waaye nag papa yi Layla waroon naa xam ni dof gi Qays Qays Qays doful déedéet waaye mbëggeel gi mu bëgg bëgg Layla moo ko dof loo dof googu nag boo bëggee faj da ngay jël sa doom may ko rek buñ ko muñ ko may mbir mi jeex dof gi daal daj wante mu lànk <coughs> léegi nag Qays nag te mooy majnun Layla ndofam gën a yokk ndofam gën a yokk ndax danñu ko da dañoo wax Qays duñ la may Layla ba pare wax ba pare waa kër Layla ni yow buñ la gise gisatee ngay wax ak dinañ la buñ gisatee Qays daa daa di ba ñu wax Qays buñ gisatee ngay wax ak Layla dañ la rey lépp nag kon waa kër Layla nee nañ buñ gisee Qays di wax ak Layla ko rey ba pare woon ni Layla buñ la gisatee ngay dem ci Qays dañ la rey Layla am lu ko metti parce que Layla tey bëgg na Qays Layla daani yuhaddiduni qawmi bi qatli wa qatlihi fa qultu iqtuluni watrukuhu min adh-dhanbi ولا تورثوه بعد قتلي زلة زلة ويكفي الذي يلقاه من لوعة الحب يهددني قومي بقتلي وقتله فقلت اقتلوني واتركوه من الذنب قل ليلى جسنا ليلى نينا سما واكر dañ ma menacé ray ma ak ray ko buñ buñ nekkate ma buñ togoté man len ray len ma tabay bàyyi te ngeen bay ko moom ray len ko bu len ko ray te bu leen ko rayé da ngeen ma indil gatch sama dund gi légui nak mom bu ngeen ma rayé mom dana mom mom lamay déssé moy mbeugélam rek ni ñu koy yar ni ñu koy ray wala tuurisuuhu ba'da qatli zallatan ويكفي الذي يلقاه من min lawati léegi nag xaysu nag xaysu daal di soppeeku nag nekk ci beneen monde am coona am njàqare xaysu même melokaanu yaramam ni mu ni mu xeesa dafa mujj ñuul yaramam ci bopp ni dafa mujj jeex tàkk di maigrir lépp di xalaat Layla léegi xaritu papay xays ay xaritam dañoo nekk ñu ñëw ci papaam ni ko ni ko ni ko ni ko xaysi daal xaysi toogatu la nit ñi sax ndax dof na ndax dof na ci Layla dof na ci Layla xays lekkatul naanatul yow léegi xam nga nooy def jël ko nga yóbbu ko euh, euh, mu dem mu dem umra wala mu dem aji jël ko yóbbu ko mu dem aji ilal baytul haram waxtu waxtu waxtu aj dafa tombe mu dem bu demee mu aj umrah bu demee ci aj ga moom na ñaan yow nga ñaan yalla génnee xol bi génnee mbëggeel layla ci xolam lool de mo ci lool rek léegi ñu dem ba ci aj ga ñu dem ba ci kaaba papam dem ci kaaba ku ne xam na ni kaaba ga place ñaan la papam di ñaan yàlla yàlla sama doom ji yàlla nga génne ci xolam mbëggeel gi mbëgg Layla mu daal di wax Qays ni ko yaa Qays xu xul maanaam xul yaa rabbi maanaam na nga wékku ci kaaba gi dem ba ci kaaba nga wékk wékkul ci kaaba gi ngan li nga ni yaa rabbi xallis nii min Layla wa xubbiha defal loolu waaye xool li Qays def xëy si faalewul papam li mu wax de xëy si dem ba ca Kaaba ga wékku ca Kaaba ga daan ni yaa rabbi laa taxrimni min layla wa qurbiha subhaanallah yaa rabbi la taxrimni min layla maanaam ah, contraire li papa papam wax maanaam papa ji nañ ko ñaanal yàlla mu dimbali ba nga fàtte layla moom mu ni yàlla yàlla yàlla yàlla boo ma xañ mbëggeel gi ma bëgg layla yàlla nay gën a ci man kon contraire ba la papa ji daal koy addi ci kaaba gi dóor ko dóor ko dóor yu metti ba lay ba ba khais daal di xam khais xam leg bi mu xëmilu ko a dégg li xays xays daani يا رب إنك ذو عفو ومغفرة بيت بعافية al المحبين الذاكرين الهوى من بعد ما رقدوا العاكفين على أيدي المكبين يا رب لا تحرمني وصلها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين xam كي ni kii كي xam آه، nga واي كم منكو تقلق منكو تقلق kenn يا رب إنك ذو عفو ومغفرة بيت بعافية ليل المحبين الذاكرين الهوى من بعد ما رقدوا العاكفين على أيدي المكبين يا رب لا تحرمني وصلها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين ممدمنا بقى bay ñaanalaale sax moom moom mi ñaan yàlla yàlla bu ko yàlla xañ ak jokkoom ci lay laa abadan dem bay ñaanal képp ku ni amiin rek yàlla ko yàlla yërëm xam nga ni mbëggeel gi eh, xóot na léegi nag papa yi lay wax papa yi xays xam ne nag doomam ji isq bi na ci moom mbëggeelu tàngooru mbëggeel gi dox daw ci xolam dem ba tax koo dof mu defloo ko tàngoor gis maanaam maanaam mbëggeelu lay la ko koo gañe gañe na ko léegi lay euh, saan xays day ba ci guddi ba ci xaaju guddi gi xays jóg moom dong di def ay ashaar di di di maanaam tàqale gi ñu ko tàqale Layla moo koy mettitlu ak di wax mbëggal gi mbëgg Layla parce que dof na jeex na koo koy dof na ci biir aj gi au lieu mu au wu ci wàllu aj gi ci wàllu ñaan yàlla ci wàllu jaamu yàlla masaa'ir laa déedéet moom Layla lay fàttaliku ca aj ga ñu dem minan ban demee ca minan fale minan fale ca ñuy sànne jamra léegi bi minan Qays dégg benn waay benn waay buy tu buy woo Layla naan ko yaa Layla yaa Layla fekk maanaam mën naa am Layla bi muy woo sax rakkam bu jigéen la wala jabaram la wala doomam la bu tudd Layla keneen ku tudd Layla mu naan ko yaa Layla yaa Layla kay maanaam di woo Layla xëys daal di fàttaliku Layla daal ni وداع دعا إذ نحن بالخيف من منن فهيج أشجان الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أثار بليلى طائر كان في صدري إذا بان من تهوى وشط به النوى ففرقة من تهوى أحر من الجمر الله أكبر دادي بن وخير معنى متسكر دفني بنكي كي من الخيف بالخيف وداع الدعاء إذ نحن بالخيف من من الخيف خي... مسجد أما بو بو بو بو كوتشيم أك ولا كودم أمرأ am na benn jàkk ji ñuy wax masjidul xayf al xayf xayf ci ci minaa la nekk xayf ci minaa la nekk mu ni wadaaxin daa id naxnu bil xayf min mina fa hayyaja ashjaanu fuaadi wa maa yadri maanaam dafa am benn waay boo xam ne rek dañoo jëkk ba yàgg mu woo mu woo Layla ba mu waxee rek mu yëngal sama reenu xol yi te waa ji yëgul sax li mu def waa ji yëgul sax li mu wax dafa mel ne dafa am daf mel benn picc moo jël Layla rek di naaw moom ci sam biir xol subhanallah léegi moom bi mu waxee loolu dafa dafa daal daal di xam moom dafa gaaw ci xam moom moo tax ñu ñu tudd ko majnun Layla ndeysaan papa yi Layla mujj na moom ci boppam mi ngi bëgg a dof moom ci boppam ndax papa yi Layla papa yi Qays laa damaa jum papa yi Qays ngeen baal ma papa moom dem na ba jaax ndax pexe mi ngi jeex papay Qays dem na ba moom ci boppam mi ngi bëgg a moom ci boppam mi ngi bëgg a dof ndax doomam ji doom je mi ngi mi moom dof na moom ndax ndax bëgg gi bëgg euh, Layla dafa mujj maanaam subhanallah di jooy papa ji léegi papa comme mi ngi comme ñi ngi foofu ci aj ji mu daal dajale ujjaaj dajale ujjaaj neen kaay leen بنيه ملن ان ابني هذا فيه كذا وكذا اصابه كذا وكذا اصابه العشق والهيام يا يعني يدي من لعل من بينكم رجل صالح يدعو له فيكشف الله عز وجل ما به ليس ما دام بام دجالي نيت نين سام دوم جي دا فيبر مبغيل اك نوبل بو بو بو بو مانام بو تانغور بو بو فيس ديل مو نيت خولم léegi nag bu fekkee am na ku nit ku baax ci yéen rek ku mën a ñaan ñaan ñaan yàlla ñaanal ma ko ndax yàlla dindi génnee ko ci lii mu nekk ci mbëggeel léegi mu woo nit ñi nit ñi daal di ñëw ci xays woo ko de xays moom xays commencé daan ni zakartuki di di di wax ak Layla la de waaye ma ngay wax leen zakartuki wal xajiiju lahum dajiju بمكة والقلوب لها وجيب ذكرتك والحجيج لهم ضجيج بمكة والقلوب لها وجيب فقلت ونحن في بلد حرام به والله أخلصت القلوب آه، أتوب إليك يا رحمن مما عملت فقد تظاهرت الذنوب فأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب وكيف وعندها قلبي رهين atubu ilayka minha wa unibu xam nga lii ku koy wax ci ñaam boo bokkaale la fa qultu wa nahnu fi baladin xaraamin bihi wallahi uxlisat alqulubu léegi mu ni dégg dégg mu ni atubu ilayka ya rahmanu mimma amiltu faqad tadaharat الذنوب yaa mu ne ko mu ñëw yàlla mangi ngi tuub ci yow bépp bu def sama bakari yi bari na waaye nag am na loo ko top xam nga wax ndax bëggeel muni fa amma min hawa layla wa tarki ziyarataha fa inni la atubu <laughs> xam nga ni ki ki ab dof la muy ñaan yalla dani ni di ñaan yalla yalla ma ngi ma ngi lay ñaan nga jéggal ma sam bàkkaar yëpp waye nak amma nak bëgg gi ma bëgg Layla ak tamit di ko bañ a di ko di ko bañ a ziyaare loolu moom du ma utub wa kayfa atubu wa indaha qalbi rahinun atubu ilayk kay wa kay kay wa kayfa wa indaha qalbi rahinun atubu ilayka minha wa unib maanaam subhanallah mu ni Layla Layla sama xol dafa nekk lu ñu tay la ci Layla kon loolu nan laa koy tuube léegi nag bi bi mbooloo mi bi déggee mu wax lii ñu ni nag kii kenn mënu ci moom dara kii kii ki mbëggeelam sax mi ngi koy bëgg a yóbbu ci ci kéeféer ñu daal di euh, ñoom ñëpp ñu découragé daf koy bàyyi bàyyi ko fa léegi nag papay xay si moom daal di jël doom rek parce que ndax da koo bëgg dafa bëgg xays ndeysaan ñuy léegi at ji jeex na nag ñuy ñibbisi léegi ñuy ñibbisi bi ñuy ñibbisi ci yoon wi ñu dajeeg benn caravane buy dem maanaam ñu dajeeg ñoom ñoom it ñuy dem ñoom ñu xam xays ñu ne ko yaa xays بلغنا من أخبار هيامك وعشقك ما بلغنا هل التهيت يا قيس هل لا تصليت هل لا عدت إلى رشدك هل لا انتهيت عن هذا الحب اعقل إيه يا قيس كن يوم قيد قيس دفن بمبيرم سيون نيبكو خم نيلكو يا قيس ديغن ديغن سي مبير نيغا بغي سك مبغيل بغ نيغا بغ ليلى مانام نينغ مل دوف بين تي دوف مانام لولو ديغ مي يو خنا دو ام خيل nga bayyi euh, li ngay xana mo génn mënoo génn ci li xana xanaa mënoo del si waat jub mel ne nit ñi nekk nit mënoo xana mënoo bàyyi ni mbëggeel gii du mbëggeel daf lay rey قيس خم من تونت قالوا لو تشاء سلوت عنها فقلت نعم ولكن لا أشاء ملكي سبحان الله وقالوا لو تشاء سلوت عنها فقلت نعم ولكن لا أشاء xaalu nee nañ ma yow de bu neexoon nga fàtte ko man leen waaw waaye nag du ma neex laha xubbun tanashaa fi fuaadi wa laysa lahu mada dahri intihaau xalaas mu ni mu ni Layla dafa am mbëggeel ci man goo xam ni dafa sax ci sama xol baba ba àddinay tukki du jeex lu sosu la mënuma ci dara léegi Layla kii laay wax Qays di di ñëw almajnun te mooy almajnun ànd ak papa yi ñuy ñibbisi léegi ba léegi ci yoon ba ñëwee bay bëgg a ñib bay agsi nag bay bëgg a àgg léegi nag ña ngay romb ña ngay romb diyaar Layla maanaam ñoom ña ngay romb dëkk ba Layla dëkk war ci seeni waruwaay yaa ngi dégg xëy si moom ma romb mu daal mu daal di wax benn bay daani aya ala habada najdun mooy ndaxte najd najd mooy dëkku Layla maanaam Layla fan dëkk mooy najd mu ni ala habada najdun wa tibu turaabuha wa arwaaxuha in kaana najdun ala ahdi in kaana najdun maanaam moom najd ci boppam ak suufam suufas najd na mu bar na mu barkeel na mu baaxee ña fa nekk mbaax gi yu baax lépp nag mi ngi dellu ci ka nekk te moom it mooy lay law léegi bi ñu agsee ci kër gi bi ñu agsee seen kër léegi nag ñu daal di ñu daal di toog nag ñu daal di dajale léegi xëy ñu woo ay papaam ay ay rakku papaam ak magu papaam mag ay euh, nijaayam ak ay euh, doomi baayam ak doomi doomi baayam ñëpp ñu toog famille famille bi ñëpp toog ñu ne ko yaa qays yaa qays لا حظ لك في ليلى ولا لها فيك حظ مانام خيس ليلى بوش امتي ياكار بابام بنيا ليلى سو ورسك نيوتي موميت ورسغم نيول تي ياو loolu foog nga jël ko def ko sa xol bi léegi nag suñu doom yaa ngi nii sa doomi baay sa doomi nijaay sa doomi tante sa sa doom yaa ngi nii jël taxayyar ayyahunna chita nuzawijuk amma Layla fala seetal ku la neex ci sa doomu baay sa doomu sa doomu tante sa doomu jegeñaale yi ñu jigéen ñi xool ku ko ci neex amma lii laa fàtte ko lii laa moom duñ la ko jox duñ la ko may ñu yeddu ko mere ko gëddu ko lu ne léegi xays daa di lànk xays daa di ni laqad laama nii parce que ndaxte boo seetloo boo seetloo euh, boo seetloo Qays moom moom ah monde bi muy dund ci wàllu mbëggeel ak ak ñoom seen waa kër nañu mel ci waa nañu mel ci seen ci diggante Qays ak Layla dafa dafa différence lool moo tax Qays moo tax Qays daan ni laqad laamanii fii xubbi Layla aqaaribi abi wa bnu ammi wa bnu xaali wa xaaliya أرى أهل ليلى لا يريدون لا يريدون بيعها لشيء ولا أهل يريدونها ليا قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق والأحزان منها قضى ليا لجي آه، لولا لولا قيسوا قيسني من دي سما جيجنالي سما بابا سما دوم سما دوم باي سما باي سما نجاي سما دومي نجاي ني نيب ñi ngi may yedd ci bëgg li ma bëgg Layla te gis naa ni Layla kat ñoom seen waa kër duñu ma duñu ma maanaam duñu ma ko mës a may duñu ma ko may suñu waa kër it maanaam seen waa kër Layla ay mbokkam bëgguñu ma ko may samay mbokk it bëgguñu ma dem ak Layla du bëgguñu ma ma ma seeg Layla wante mu ni qada allahu bilmaaruf minha li gayrina wa bilshawqi wal ahzan minha qadaniya maanaam gis nga dafa am loo xam ni sax dañ ciy jànge gis nga gis nga bëggeel dafa garaaw leeg nga gis nit koo xam ne moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na xadis boo xam ne fa ne ida ataakum man donte xadis boobu jam nañ ko am nañu ko tadaifal ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu koo xam ni ñëw na ci yéen diineem ak jikkoom doy leen na ngeen ko may am na ndollant bu ci dool sax illa tafaalu takun fitnatun fi l ardi wa fasadun kabir bu ngeen ko deful fitna dina am ci suuf yàq yàq gu rëy dana fi am euh, wante léeg-léeg da ngay gis conséquences yu doy waar di am ci euh, diggante ñaari way bëggante fekk ña koy waral mooy mooy mooy way jur mooy duñ la ko may kii loo koy doyee maanaam moom xamoo fu mu toll ci mbëggeel looy doyee kii moom bëgg na wala ku góor ngeen ko looy doyee kii loolu nit ñi war nañ ci di bàyyi xel baax a baax a baax ndaxte dem na ba ba xayis mujj naa moom génn këram génn kër bàyyi mbokkam dem ci ci désert bi ak ci àll bi foofu la foofu la mujj di dund foofu parce que gis na ni maanaam ay gis na ni dëkk ci biir kër kër mbokkam xat aw xat la ci moom ndaxte ñoom ay mbokkam kenn d'accord mu sëyg Layla waa kër Layla d'accord ñu Layla ñu may ko Qays léegi nag Qays daal gën dem ci àll ba toog foofa nag moom jeex na daal toog foofu léegi nag euh, ci loolu am na benn kenn ci ay mbokkam kenn ci rakk papam eh, koo xam ne ku jàmbaar ci xeex la faaris la xeexkat la mu ñëw ci fekk Layla ca fekk Qays ci àll ba mun ko Qays na sa xel dal Layla kenn du ko may kenn ku lu yow man maa la koy wax képp ko Layla képp kuñ ko may dinaa rey kooku ko yaa Qays wallahi laa yutazawaj Layla لا يتزوج ليلى ليلى لا يتزوج بغيرك وإن زوج بغيرك قتلت زوجها وقلدت من زوجها يو بوس بوس صوم ليلى دا كون كوماي دينا راي كان كوماي راي كوماي يوم ياك اور ففر قيس دادي دادي قيس دادي كونتان دادي دادي ام تي لولو ام كوماسنا كوم كوم قيس commencé naa am tuuti yaakaar ki ñenn mbokkam yi te mooy doom te mooy bàyyam boobu mujj nag xëy si nag teewul ca àll balay dunde lem na ba mu ñu nekk xaritu njaay àll yi xaritu kéwal yi xaritu euh, ñi do ñi maanaam ci ñi nekk ci àll bi rek yi xaj yi ah njaay àll yi wuxuus yi mujj na ñooñu nekk ay mu nekk ay kéem ay xaritam léegi benn bis daa daa jekk ba yàgg rek mu gis ay giléem maanaam karawaan boo xam dañoo ñëw di ñëw di di dem jóge boori dëkku lay laa léegi moom mu gis ay gileem yu jóge boori boori Layla di ñëw parce que nee naa ñoo bokk benn famille famille maanaam bu fekkonte ni càllee na nga ni xam càlleen dafay yaatu wala ngayeen dafay yaatu wala njaayeen day yaatu léegi mu daa mu gis gileem yooyu di ñëw mu ni ahinnu ida raaytu jimaala qawmi wa abki in samitu laha xanina saqa algaysu mujiddu diyaara qawmi wa in balat diyaaru wa in balina mu toog ba yàgg léeg-léeg léeg-léeg mu jëkk ba yàgg mu gis ay ndiiraamu picc bu ne ndiiraam moom gurubu picc di naaw di ko romb di naaw di ko romb xam nga ni kon kii nekkatul nit mu ni shakawtu ila sir bil qata id mararna bi fa qultu wa misli bil bukaai jadiru asir bal qata hal min muirin janahahu لعلي إلى من قد هويت أطير شكوت إلى سيب القطاع سيب القطاع موي Euh, mooy mooy ndiiraan ci wolof mooy groupe picc ismarar na bi bañ ma rombe fa qultu wa misli bil bukaai laha jadid maanaam euh, fa qultu wa misli bil bukaai jadid maanaam ku mel ne man ak situation bii mu nekk bu jooyee rek daa war a jooy mu daal ni asir bal qataa mu ni yéen asir bal qataa nag bayit bi euh, dina ñëw ci xam naa ne ci alfiya ci baabul munaada da nga gis ci baabul munada asir bal qata da lay won ni hamza bokk na ci xurufu nida comme ni nga waxee yaa rajulu mën nga tamit arajulu mën nga ni arajulu fu ñu ko jële ci waxu qays bi moo tax man la lugal arabiya léeg-léeg di jàng shi'r dafay baax ci di ko jële ci ci ci di ko suala ndaxte daf ñuy daf ñuy xamal daf ñuy jàngal naqu daf ñuy jàngal balaaga daf ñuy jàngal tafsirul quran xata مني أثير بالقطا هل من معير جناحهم ين ديران بيتي ين غرو بيتي اسكا تي ين امنا كومي ابل نا لعلي الى من قد هويت اطير بوكا دفي تي كاغا خامني موم لا بغ من ماو جيم تي تموي ليلا مجي ا أه، مونيتي الله بارك بوغول وا كرم جيمو فدي فا دوندو وا كرم نك ñoom léeg-léeg ñu koy yóbbul foofa lekk ak naan muy lekk léeg euh, muy lekk léeg-léeg bu ko romb yor lekk caravane bu fa romb mu mu lekk ci seen ay lekk caravane boo xam daa romb ci désert bi euh, lekk rombaale ko day lekk mu lekk ak ñoom léegi nag guddi gu nekk rek day gën a am njàqare di gën a am lu ko metti ci lee la mu am benn guddi goo xam ni benn guddi gu guddi gu lëndëm guddi liw sedd bi sedd bi sedd bu tar sedd bu jam bu tar mu gis mbooloo moo xam ni dañuy dañoo taal dañuy taal safara dañuy taal pour euh, dañuy taal pour pour pour xëy na di lakk seen yàpp wala dara waaye fu ñu taale rek fekk euh, taw bi fu ñu taal rek taw bi da koy fay xam nga buy taw nga nekk ci àll doo mën a taal boo taalee taw bi da koy fay mu ñëw ba ci ñoom ni leen yaa muqida annaari yudkiha wa yuxmiduha قرب الشتاء بأرياح وأمطار قم فاصطل النار من قلبي مضرمة فالشوق فالشوق يضرمها يا موقد النار ويا أخ الذود قد طال الظماء به لم تدر ما الري من جد وإقتار رد المطية على عيني ومحجرها تروي المطية بدمع مسبل جاري يا مزمع البيت إن الجد إن إن إيه يا مزع يا مز يا مزمع البين إن جد الرحيل فلا كان الرحيل فإني غير صبار لجي نحتكم دنيو بقى قصة لي كيوكم جيه ما تبغونه آه، دي بيت بيت بني بر بيت بس دفعي جل كام لجيب سلامي فك نمبرومي دي دي تال لنتارك Euh, seddaayu jaww ji ak ngelaw leeg taw bi fay ko mu ñëw ni leen yéen yow yow mi taal safara jëru ngay taal safara jëlal benn bant nga teg ko ci sama xol bi tàngooru safara gi nekk ci man mbëggeelu tàngoor gi nekk ci man dinaa la ko taalal moo tax mënu ko yaa muqida naari yuzkiha wa yuxmiduha qarru chitaai bi aryaahin wa amtaari qum fastali naara min qalbi jógal nga taal safara sama xol مبرمة فالشوق يضرمها يا موقد النار mu nekk ak ndeysaan kéwal yi dafa demee ne ba xaritu kéwal yi kéwal kéwal yi fa nekk dem na ba xaritu kéwal yi léeg mu téye benn kéwal yaa ngi dégg mujj kéwal yi dootuñ ko dawati ndax miin nañ ko xam nga bàyyu ma bu la miinee rek miin na la ndaxte nee na kéwal gi rafet gi mu rafet dafay nuróog Layla benn bis mu daal di téye kéwal gi daal ni billahi ya zabiyaati alqaa qulna lana Layla min kunna am Layla min albashari lii bi tamit billahi ya zabiyaati alqaa balaaxi yu ni bayit bi dañ koy istishhaad ci wàllu zikrul musnad zikrul musnad في في موضع المظهر ذكر المسند معنى ذكر آه، آه، آه، ذكر المضمر في موضع ذكر المظهر في موضع المضمر ذكر المظهر في موضع المضمر لا اوكي نلقى معنى خمغ بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلى من كنا ام ليلى من البشر خمغ ليلى من كنا ام ليلى خمغ نورمال ما لي ام مو ليلى من كنا ام هي من البشر leila ndax leila sama leila ci yàlla bokk wala moom ci nit ñi la bokk wala moom waaye moom dako da dafa tuddaat dafa ni laylaaya min kunna am layla min al bashar sama layla ci yéen la bokk wala sama layla ci nit ñi la bokk billahi ya zabiyatu qa yéen kéwalu yéen kéwalu peste bi yéen kéwalu àll bi wax leen ñu sama layla ci yéen la bokk wala sama layla ci nit ñi la bokk léegi nag léeg-léeg mu téye ndeysaan daal di téye téye kéwal gi téye ko téye ko téye ko di ko di ko settantal di xool kéwal gi fi mu fi mu nuru layla benn bis mu téye benn kéwal daanu ko ayaa ayaa shibha layla laa turaa'i fa innani laka alyawm min bayni wuxuushi sadiqu wa qultu laha lamma xalaltu wisaaqaha la anta li layla fi sifaati rafiqu fa aynaaka aynaaha wa jiiduka jiiduha siwa anna azma saaqi minki daqiqu takaadu bilaadi takaadu bilaadullahi yaa umma malikin bima raxubat yowman alayya tadiqu léegi Qays lu mu wax dafa téye kéwal gi daan ni ko yow mi nuróog Layla bu bul bul tiit bul tiit di daw bis naka tey man tànn naa la ci njaay àll yëpp tànn naa la ngay sama xarit Qays nee na ba ma ba ma téyee Layla ba ma téyee ba ma téyee kéwal gi ba yeew ko pare dama ni ko لأنت لليلى في الصفات رفيق يو يو ملو كان يو يبوك ليلى منك فعيناك عيناها سأي سبت كمبة ليلى وجيرك جيرك صدق كم دوق ليلى سوى أن عظم الساقي منك دقيق سوى عظم أن الساقي دف وينك دف من لين ne len dong nga nga nga nga nga wuteeg moom mooy yaxu yeel sa yaxu yeel moom dafa tuuti moom nag bosom déedéet tuutiwul من يتكا في بلاد الله يا أم مالك بما رحبت يوما علي مني ما ندكي كبب دمنا بق خونا خط من أجلمي يا ياتو لجي آه، فوفلن كوي فوف موي آه، فوفلن يعمل بارت بو جاك بي مجنون ليلى بو ان شاء الله بين جوتاي بي كنتني كونتيني قصه ليلى ياكنا Euh, jëriñu ngeen wala bokk euh, incha allah euh, mbir mi am na tuuti ñu ngi yaakaar mu am njëriñ tuuti ci liñ wax waaye nañ ko yàlla foofu rek wallahu aalam wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo bi ba pare ñu ngi lay ñaan nga bës fii ñu bind jëm bu fekkee gande si chaîne bi nag bësal fii nii ñu bind s'abonner après nga activer colos bii nii mën nga tamit wax sa xalaat yi ni si commentaire li nak do ci fay dara te dina tax video buñ dugalati ding ci jot jangin ngeen